Balla Gaye de Modou Lo ñu ngi naan ñu naan taxaw na. waaw combat boobu mm, noo ko gisee yow. nu ko gisee. waaw combat bu neex a ngi noonu. te gars dañ cee bàyyiwul xel. Modou ak Balla. komba bu am enjeu. waaw te gars yi bàyyiwuñ ci xel. lu lu tax lu bu garaaw. te gars yi bàyyiwuñ ci xel. lu ko tax a garaaw. dañoo laale woon. Mhm. Balla daan ko. Mhm. Modou Lo di onk ba guddi yi ñuy toll ni mu ngi onk. onk waaw na di. que defet boobu moo gën a metti mu ngi onk ba léegi comme mu ngi onk nag waaw ah dem na waat na ñëwaat na cinq ans ci ginnaaw xaw ma mhm. cinq ans xaw ma six ans ci ginnaaw ñu dajewaat encore ñoom ñaar mhm. dañuy ñaanaat yàlla ndam balla amaat ndam mhm. loolu rek la nga ne mu ngi onk est-ce que combat ba nam demewoon mënti naa demee ndax Modou léegi daa mel ni ci côté doole physiquement mentalement sénégalais yi ne nañ fi mu nekk nii màgg na ba lañ ko balla defoon 2010 est-ce ko ko a def bu ñu bëriwaatee dañuy ñaan yàlla mu def ko ko. Hmm. dama ko defoon bële paas mu def ko ko. Hmm. waaw. Balla moom nee na ma bu yoon neuf secondes laa koy daan Balla wax loolu. yow képp ko xam Balla xam nga Balla nu mel. Hmm. moom ni mu waxee noonu la jëfee. mais est-ce que physiquement yow Balla mi nga gis ni doy na la ak Modou Lo. combat bi ñaataat la ñaata weer la. ah ñu ngi naan mois de janvier. de la mois de janvier. waaw maa ngi koy dégg. cinq mois. wala six mois. cinq mois. ci diggante cinq mois. ak compétition bi mu jógee nii. Hmm. mu Gris Bordeaux. Hmm. bu ci dolliwaatee. Hmm. yeneen cinq mois wax mu six mois. mu six non kooku dina romb pare. dana romb pare. lu leer laa la wax. mais pare nga pour accompagner ko ci combat boobu tey bu taxawoon bu la ci wooyee. ci liggéey physiquement bu yàgg baal ci liggéey. amee noonu la. am maa moom yàgg nañ ci ànd. combat moom Modou la bu njëkk ba. ànd nañ ci. waaw à cent pour cent. te ba léegi nii. mu wax mu ñàkk wax dañ ci ànd. parce que géejuwaay la ñu wax. géejuwaay la ñu wax ñun géejuwaay la ñu am moom la ñuy tiitaroo ah. mhm. géejuwaay la ñuy tiitaroo. Mhm. moom lañu am. man moom la am Balla moom la am Sakef moom la am Guy gi. Mhm. les LIF 2 Alioune Seye 2 Abdou Diouf. mbëru géejuwaay yëpp mbëri ndaw ba ci mag ñëpp. mais am na combat bu ma la gisul ren. mooy ban combat Guy gi. waaw ah, bu Guy gi moom nekk ma fi woon boobu nekk ma fi woon. gisuñu la làmb ja gisuñu la press bi waaw. yàlla rek moo ma tiim. bilaay wala man déggante naa Guy gi. Mhm. ma feebaroon guddi ko maa ngi toogoon fii. Mhm. ba ma feebar ma to ma tooyoon. su may sëqat sax bi yow nag kër gi day réer. Mhm. waaw moo tax kenn gisuma woon ci kii boobu ñu tax open press bi. déggante naa moom ba ma boole ak sama sama doom mooy Jules. ba mu dem fa. waaw jàppale ko ci shadow box. ci box weeg yooyu Jules waaw ñu koy ziar gis nañ ko fa léegi nag. adversaire yi moo des tey sax xëy nañ gis ñu ne yaay fi mu nekk nii VIP bi ñu gën a sollicité ci ay adversaires yu lay dëkk mm-hmm. dinañ ci ñëw ci kenn nag. wala sax balaa muy ñëw ci moom loolu ñu xëy wax ne yow yaayu mbër mi ñu ëpp fi mu ne nii ñu lay dëkk bëgg a bëri ak yow loolu noo koy dund en tant que champion. waaw mais noonu la ñëpp dañuy bëgg a seeni mag ñëpp dañuy bëgg a seen rakk. Mm-hmm. tey mën naa ne ñun ñu doon bëgg a suñuy mag. Mm-hmm. ñun ñu doon bëgg a suñuy mag. Mm-hmm. xam la suñu rakk tam noonu la ñuy bëggee ñëw bëri ñun. waaw noonu la seen normal noonu la demee waaw demee. am na mm. ci koo xam ne moom seen coow bëri na. mooy kan Boy Niang booy ñaa ñeme na la de booy ñaa bu dégul. waaw waaw. bu per dégul. waaw booy ñaa. waaw. nee nañ ma ñeme. na la kay. ah lu mu wax moom. maanaam seen combat dama ko ne yow sa combat ak Lac. bu amee mbaa amateur yi du ñu mer mu ne lu mu laaj rek su moom lay def boo indee warga dina la ko naan le lëwal ba deuxième ba troisième ba quatrième ba tarxis yàgg naa ba ci ne ko sax est ce que naan ataay Lac de Guiers na ci yow mu ne amul lu ko gën a wóor ci moom. Ah. waaw. Ah, combat boobu de. Hmm. bés bu taxee duma ko sax du ma ko sax xeelil. Hmm. doo ataaya. doo ataaya sax du ma ko def. Hmm. waaye garaawul nañ bàyyi mu tax rek yàlla baax na. mu taxaw bés bu taxee. waaw ah. xam. booy de pare na. <laughs> moo tax ma la. <laughs> Ah. ku ci yaakaar damay tëdd di nelaw. Ah. dama koy faral di wax ci ay émissions yu bari mais gars yi duñ ci bàyyi xel. mais ku ci yaakaar damay tëdd di nelaw. Mm-hmm. yaa ngi nax sa bopp. yaa ngi ci maa ngi entraîné maa ngi entraîné Cheikh yi maa ngi entraîné. Mm-hmm. parce que samay nit yi sa si man yi may tiitaroo bëgg ma. Mm-hmm. samay supporters. Mm-hmm. sama staff sama waa écrit dañuy sonn samay mbir. kon donc njuumte waratuma. waalo. dafa am foo xamante ne. dañ ma fa teg. yaakaar ci man. kon donc njuumte waratuma. waratula moo tax it ci biir weeru koor gi. du ma tëbal benn jour boo xam ne damay entraîner rek. Mhm. entraîner rek len laa am moom mooy dimanche. Mhm. laay rompalu. Mhm. li ci des nag koor gi bu jeexee ñu yeggaliwaat ko. ngeen yeggale ko waaw. yàgg ñu ngi doon wax seen combat tamit. Tapha Tine. daanaa na ngi noonu nag. le géant du Baol. pare nga ngir may ko ndax am pare naa pour may ko revanche. na promoteur yi ñëw rek. yëpp ñëw rek bu ñëwee bu ñu waxtaanee. Ah. kàttanu yàlla dinañ jubóo incha allah. Pape Thialis daa ñëw ci di dox sa combat. non man wax naa leen ko man du wax ak promoteur sa manager la ñuy waxal. mais amoo benn écho ci ne ñu ngi dox sa combat. waa si dégg naa benn écho. Uh-huh. waaw mooy kii. Euh, Pape Thialis Boy Niang yaa Boy Niang. <laughs> yaa ngi Tapha Tapha Tine Boy Niang bu la dàqal. Tapha Tine Boy Niang. waaw ñaar yëpp neex na. bu ci gën a neex. bu ci gën a neex. bu taxaw rek. Ah, dégg nga la yi soxla dégg naa dem nee nga nee mooy yéen VIP da ngeen a war a ñam xale yi. ku mel ni ah, Ama ku mel ni Boy Niang da ngeen leen a maanaam gars yi dañu war a ubbil giri jël Ama yow nga ñam Boy Niang. xam nga la mooy problème man soxoruma. Mhm. man. Mhm. walaay soxoruma dama yéene sama rakk yi. Mhm. dama sama morom yi. ñëpp laa tout tant qu'ils ñun bu ñu tollee fenn ñoom itam ñu ñëw ba toll benn niveau bi. Mhm. bu ñu leen mayul. Mhm. ñu yéeg. Mhm. ñan ñoo leen may ñu yéeg. waaw ah. leen may ñu yéeg ñoom ñëpp. xam nga fekk ñoom itam ñu wane seen bopp bu fekkee ne mën nañ ñoo daan ñoom. xam nga ñu continuer. fekk mënu ñoo daan tamit ñu taxawaare góorgóorlu ci yeneen booy rek. daal di defaat loolu rek la waaw waaw. waaw kon de dafa mel ni kon daa mel ni daal tey moom. ah waxtaan bi neex na trop macha allah. Euh, actuellement nii yéen mbër yi gis nañ leen tamit ci côté mbooloo bu ngeen def. Ah. di am ay xeex yu ngeen di xeex ak CNG bi ci seen lu ñu leen di teg ak yooyu. loolu yow foo ci toll. loolu fu ma ci toll. Mhm. xam nga mooy li ma leen wax rek man je suis tout cœur avec lutteur man mbër laa. Mhm. sama mbëru mbëri laay mës a àndal. Mhm. te li ñuy xeex moom laay xeex. te duma ci taay di ci xeex de. xam nga lam mooy problème bi. nit boo demee ba toll ci benn niveau bi nga def vingt quatre ans de pouvoir. yaa ngi bu ñu naan mbëri. Mhm. bu ñu amee quarante cinq ans dañoo war a bàyyi. Mhm. ah yow nga def nga am ñaataat. ah waxal man de. bu ah? ko ay at. waaw mais retraite dafa am. na mhm. nañu dem indiwaat fi ñeneen ministre bi xoolaat ñeneen teg leen fii te ñoo ñooñu muy xool di leen fi teg ngalla na ci ay mbër bokk. waaw ñu ñun loolu mooy suñu souhait. est-ce que yéen mbër yi nag mën ngeen a yore mbirum CNG. am na ñoo xamante mën nañoo yor. comme ñan maanaam. non non du ma cité. dama cité kenn. parce que yéen da ngeen di far de. non du question far. du question far. recours jàmbur dafay dugg ngeen seet nu ngeen ko def. non dégg lu ma la dama la la ministre bi bu xoolee ñi nga xam ne ñoom la war a teg CNG. Hmm. ba pare. Hmm. war na tànn. Hmm. quelques membre ci si ancien gloire yi. dugal leen. Lamine yaa ngi ci liiru liiroo nga. yaa ngi ngi palaat ba de. aca liir euh, jël quelques <laughs> anciens gloire yoo xamante ne suñuy papa la ñu ngi ci biir. xam ma la ñoom tamit ñu bokk ci. yaa ngi dégg mais munoo toog munoo toog 24 ans de pouvoir nga ne doo wàcc doo def dara dafa loolu dafa xaw a ñaaw sax. day doy waar daal waaw day doy waar ñoom nañ wàcc. Mhm. dem nañ ba mbëri doyal nañ ci ñoom. Mhm. kon donc ñoom nañ wàcc. mais nag mbëri teguñu leen fi de. Ah? ministère moo leen fi teg. waaw mais ministère. Mhm. ministère moom ci boppam. ah ñun suñuy voté moom moo tax ñoom ñu toog fi tey. ok yaa ngi dégg. kon donc ñoom jot na pour ñu dem nañ dem. léegi combat yi taxaw ak yi kii foofu la ñu koy jeexale bu ci dàqal la. combat yi taxaw. waaw. combat yëpp a ma neex. Hmm. sincèrement parle. bu la ci dàqal combat Bombardier Eumeu Sène neex na. Hmm. royal la. Hmm. boobu beneen affaire la. combat royal boobu dañ dañ ci war a bàyyi xel. combat boobu lu tax ñu war ah. cee bàyyi xel. xoolal bu baax. Eumeu Sène dafa bëgg dem jëli roi des arènes. waaw ah, la wax de këppatali. <laughs> kon combat boobu amul lu ko dàq. yow dégg naa yàgg ji du ngeen bëri lu lu ngeen seq. wax naa ko waxati ko su ma fi toogee di ko wax day metti waa Lutte TV ñoo ko déggagul. ñoom ñoo ko déggagul. waaw boo <laughs> Bombardier sama grand la. sama grand bu ma respecté. Mhm. bu may conseil ci lu bari. Mhm. mu nekk ku ma respecté. dafa am fu ñu jaar nag du ci waxaat. Mhm. dafa fu ñu jaar. foo xamante ne euh, nekk na li nga xamante ne euh, mënu ko fàtte moom mama Lac de Guiers numéro seeni mbir daal. ñoom ñoo ko xam moo tax boole ma ànd ak ñoom. yow daal yaa nga ca biir daal toog. waaw doon seen xale. maa ngi noonu. mais xaritoo bi ci mbër yi. gars yi nañ fi ne mu ngi yàq làmb ji kii dëkk Géejawaay xaritoo ku ne Faas kii hmm. nangam. ba tax hmm. mbër yu bëri mënatuñoo bëri. loolu tamit yow noo ko gisee. xaritoo bu metti boobu ñi ñi ñëpp ñëpp a koy coow fi mu nekk nii. xaritoo gu metti googu. waaw ah. mais ñoom ñoo xam la moo tax ñuy xaritoo noonu ah. Hmm. ñoom ñoo xam. ñoom ñoo xam ci loolu. man. ah bokk naa ci kay. kan mooy sa xarit ci làmb ji. man man bëri na. kan ak kan. ci mbëri. waaw Alioune Seye deux sama xarit la. Oh. bu ah, dul waa waay sax laa bu ah bu dul waa Géejawaay. waaw bu ñu génnee Géejawaay ñëpp samay xarit lañ. kan ñoom ñëpp samay xarit lañ. mais da ngay bëree ah ñoom ñëpp da bëree ak en dehors de làmb laa wax. samay xarit lañ. Ah, mais bu ñu jugee ci làmb ji. bëri ay adversaire lañ bëri la. Ah, waaw. Lac am na soxna. Lac de ndax am na. soxna. ah loolu moom doy na waar de. Ah. yaa may laaj ah. Ah. sama waa loolu du ma ci mën a tontu gum léegi. mën na koo jee tontu. non mën na ko ma tontu. mais na koy bëgganteel. ndax am na ko may. bëgganteel. waaw am naa ko may bëgganteel. kañ ngeen la mariage bi liiru. ah. <laughs> léegi rek incha allah. ah rek nañ ñaan yàlla. liiru sa waay. Eh. waaw sa eh, tàggoo mbokk yi. waaw sama kàddu gu mujj ñi lay suivre ci luttetv.com. waaw ñi may suivre ci luttetv. Mhm. sama kàddu gu mujj lii la. Mhm. xanaa di remercier waa Géejuwaay. Mhm. di leen remercier waat bu baax a baax a baax. parce que tey ñun amuñu lu dul Géejuwaay. Géejuwaay tam amuñu lu dul ay mbëru Géejuwaay. kon donc dañ di sant di leen gërëm. di remercier tamit encore en waa écrit maa leen di sant di leen gërëm di nuyu sama staff. ñoom tamit sonn nañ samay mbir. waa Kurtug. ñooñu tamit dama leen di bégg baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. di leen wax ne ñu ngi sama biir xol. Mm-hmm. géejewaay gi yëpp. Mm-hmm. du ma nekk di seeta nag ndax ku lim juuma. di nuyu sama papa per Ali. di nuyu grand Rhône. maa ngi koy nuyu. grand Lourou. Mambu. yaa ngi dégg Tons. ñu naan ko buddi abama mu ngi nee per Cite. <laughs> sama papa ju baax père Ndiaye mu ngi nuy toog. en uh-huh. Ansu. ah sama doom nday mu ngi nee toog euh, euh, kii Madji Madji. Madji Madji ñu ngi koy ziar Madji Madji moom sama waay la sama gaayen la. dëgg la écrit wàllu mama. Ah, samay xarit lañ. di ñaan sama rakk yi fa nekk yàlla defal leen jàmm. def leen ay champion yeneen i champion yi champion. Mhm. Alioune Seye 2 maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax. Mhm. di ko béggee di ko dolliwaat béggee. Mhm. di nuyu sama papa ju baax. tonton jaaw jaaw bu impôt domaine maa ngi koy ziar. waaw maa ngi koy ziar bu baax baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam. Uh-huh. autorité yi yëpp. Uh-huh. yaa ngi dégg. Mm. kilifa diine yëpp. Mm-hmm. maa ngi leen di baalu ak ñëpp. maa ngi baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp. Mm-hmm. di nuyu sama mbokk soosay. shérif mm-hmm. ba daawoo daa bangeeroon kool ngaal konton bangeer shérif ah, Yunus yàlla yàlla yokk leeram. maa ngi nuyu ñëpp shérif Casamance ñi nekk képp koo xam ne yaay shérif nga. ngay sëtu yonent bi maa ngi lay sant di la gërëm di nuyu waa Mbour waa Caajaay dëkk bi ma juddoo. Caajaay mhm. di nuyu ñëpp. Mhm. Géejiwaay Touba. Tiwaawoon. Mhm. Kaolack. Canaba euh, Canaba. Euh, euh, fii. Ndiassane Ndiassane. Yoff Laayeen sama fan si bari nañ fa. maa ngi ziar waa parcelle ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum. bëgg naa ñëpp. di ah équipe nationale li ma leen di ñaanal. maa ngi leen di souhaiter bonne chance di leen ñaanal yàlla. Mhm. ñu dem ci kaw. Mhm. ba ca kanam ba ñu indil ba coupe bi fii. Mhm. maa ngi bëggee ñëpp. di bëggee sama doom nday Yaya ñu naan ko dama daa xonq nopp. maa ngi koy bëggee baax a baax a baax Ketchup. waaw mu ngi ne taxaw. Ketchup Mara. Tupac. maa ngi koy baax a baax a baax a baax.